قال السيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن محمد بن عبد الله بن ابن الحسن بن عبد الله الشنعوي الفاسية تجاني رضي الله عنه وطلع نبي في إتحاف الخلل وفي بشرح الحال الأفاد حزب السيفي عند قوله والتوفيق لي والإجابة لدعائي at-tawfiiqu tashiilu sabiilil xayri wa taa'ati alal abdi laa yaqdiru alaa zaalika illaa Allaahu ta'aalaa wa lizaalika qaala ta'aalaa wa maa tawfiiqii illaa billaah ilaa aaxiri ñu ngi yemoon ci xisbu sayf yu fi nga xamante ne moom la doon wax naan allahuma yow buur yàlla mais tur yu rafet yi melo yëkkati ko yi inni naka man ahmadu ko maa ngi lay sant wa anta te yow almahmud yaay ki ñuy sant wa anta te yow leen xam ne da nga yelloo ñu lay maa ngi lay gërëm wa anta te yow almashkur yaay ki ñuy gërëm wa anta te yow li sokki na ñoom gërëm ñooy da nga ko yelloo maa ngi lay sant nag di lay gërëm alaama ci kaw li nga xamante ne xasusta ni moom nga jagleel mu bii ci moom min bi ci ay may ar-ragha'ib yu fulu yi nga xamante ne yu ñuy xemmem la waaw sant te nga jokkale ilay jëm ci man min fala fadaa'il ci ngëneel as-sanaa'i maanaam defare ni maanaam ni nga ma defare mo ngëneel yi nga xamante ne moo aju ci tëgg ci ni nga ma ni nga ma defare ba ma nekk nit nii ma am loxo tànk bët nangam nangam te ñëpp amuñu ko loolu maa ngi la ciy sant bu baax a baax waaw layta ni te nga méngale ma min ihsanika ci say rafetal maanaam lu rafet yi nga ma jox yu bare bare nga dëppale kook man loolu tam maa la ci sant boo ba waxtu ni te nga dëkkale ma bii ci moom li nga ma dëkkalee tamit mun ma gannate ci njort ak sidq dëggu ànd ak fa yow maanaam ma am njort bu rafet ci yow ci dëgg mooy ah, dëkk bu rafet maanaam ci àdduna tamit doxal mu rafet nga may dangay doxale ak man ni ko muy yóbbu àjjana maanaam sama njort bu rafet boobu nga dëkkale ma ci man maa ngi ciy sant tamit ngoanante mm-hmm. ni te nga jokkale ma ci moom ah, mi ci yow alwaasilata maanaam mi na nag sa xéewal yi bokk mi na nag say xéewal alwaasilata yi jokk ila yee ci man maanaam ak li nga xamante ne moom nga def ba sa xéewal yu bari di jokkaloo di yegg si ci man di di di ñëw saa su nekk wa ahsanta te nga rafetal bi ci moom ila yee ci man kulla waqtin ci waxtu wu nekk min dafel baliyati ci jañ ay nattu an nii walif ma rawatina natt yi gën a màgg mooy nekk yéefi rek ak yenn jikk yu gën bon yeeg di reykat nekk reykat nit rek yu mel noonu nga xam te ne yëpp da nga natt yëpp da nga koo teggil te saa su munoon maa ngi woon ci condition yoo xamante ne munoon naa jékki-jékki rek mu dal ma mais nag nga dimbali ma yooyu yëpp nga jañal ma ko ak yeneen xeetu nattu yoo xamante ne ay xeeti feebar yu bari xeeti problème yu bari bari bari nga musal noonu doo ci yu bari bari yooyu maa ngi la ciy sant wa tawfiq ak dëppale tamit lii li nga xamante ne moom nga ma defar wal ijaabat ak ñaan hmm? Hmm? ak nangu li doa ñeer sama ñaan maanaam nga dëppale ma tamit ni ki noonu ci may nekk yu bari nga dëppale ma ci mu ma nekk ci li baax ma nekk xam ci li nga xam ne moom laa war a nekk ak tamit ngay nangu gi nga xamante ne moom nga fi ña moom nga may nangul ñaan xëy na jamono ji nga xam ne unaa dika maa ngi lay woo daa yan di aji ñaan di aji wootee di ñaan wa unaa jika ak tamit maa ngi déeyaale ak yow di la ñaan loo xamante ni sama diggante ak yow la kenn dégg ko raaxiban di aju xemmem nga wa a adduwokate maa ngi lay doon woo tamit di la ñaan mu tax dara am sa mbir nekk aji toroxlu mu saafiyan di aji di aji sellalu di jéem a sellal daari'an di aji toroxlu waxii na ak jamono ji nga xamante ne arjuka maa ngi lay yaakaar raajen sama mbir yëpp nekk aji yaakaar la yow kese jamono jooju tam maa ngi lay sant ci la fekk nga dëppale man ma di la ñaan ngay nangu nga dëppale ma tamit ci ma nekk koo xamante ne mm, damay dama lay woo di di at di la di déyaale ak yow ah ci anam koo xam ne damay wàcc sama bopp di soroxlu ak jamono ji nga xamante ne maa ngi lay sant tamit ci li nga xamante ne mooy xéewal yu rëy yi ma defal ba nga xamante ne ma tax dama doon am yaakaar ci yow fa ajidu ko ma fekk la tamit ba ma la yaakaaree kaafeen ngay aju mat war laa yaakaar wa maa ngi làqatu bi ka ci yow hmm? jamono ji ma doon làqati ci yow tamit hmm? fil ma ni ci bërëb yi kulli xaal lépp yépp maa ngi la ciy sant hmm. voilà <laughs> voilà yi benn partie la après day def ay ñaan su defee ñaan ba pare day delluwaat ci sant yi. Mm-hmm. Mm-hmm. kon fii mais fi ñu ci tolloon ci place bii nii mooy fi muy wax ne def nga danga nga defal dañ defal ay xéewal ci waxtu wu ne nga nga jañal ma tamit ay balaa maanaam ne jaam bi fu mu toll borom bi da koy teg da koy da koy jeñal ay balaa ay musiba yoo xamante ne même bu fekkente ne jullit bi du ñàkk ay natt yu koy dal ngir mais loolu yëpp xéewal la ci moom tamit ndax xadiis yu bari yi nga xamante ne ñoom ñu ñëw di wane ne même benn dëkk dong bu jamee ab jullit lu dul ne da koy effacer ci ay bàkkaar loo xam ne xelam sax du ko attan te pourtant benn dëkk kese la moo ko jam maanaam imagine lu natt bi di gën a rëy nag bàkkaar yi muy effacer di gën a bari hmm? mm-hmm. maanaam kon fu mu toll ay ay kii la jullit tout le temps hmm, maanaam euh, mais mais natt yooyu ñu koy teg tout temps même bu dee jullit bu mucc ci natt yu mel noonu dina am tout le temps ay natt yu gën a rëy yoo xam ne moom la ko borom subhanahu wa ta'ala di jañal maanaam di ko sori lu demee nekk kon mooy jikko ñaaw yi yenn yi kéeféer yooyu nga xam gën a dangereux ñoo gën a garaaw waaye borom subhanahu wa ta'ala dafa koy sori saa su ne mm-hmm. Mm, te euh, dafa am benn mbir mu am mooy comme li mm, euh, mooy le fait que ne nattu yi de façon dañuy laxas dañuy dem maanaam natt du toog du xaar du du nekk fii tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps day jeex voilà bu heure bu jeexee rek cent vingt temps bi jamono ji ngay dund wala dee boo dee mu lu métti métti boo deewee day jeex voilà léegi voilà kon am na am na fin hmm? euh, te natt tamit saa yu la ko borom subhaanahu wa ta'aala tegee xamal ni am na lu mu la préserver loo xamante ne looloo gënoon a métti waaw wala boog lu mu la mënti teg lu mu metti metti metti tamit am na leneen loo xam ne bu ca dooleeku woon dana gën a metti ñu hmm. hmm. ngi noonu Hmm. moo tax euh, mu indi wax jooju nga xam ne wax lu du am solo mooy bi nattu yi métit nattu yi euh, na la ko woyofalal maanaam xam bi ngay xam ne kii lay nattu dëgg mooy yàlla yàlla moo lay nattu maanaam loolu ne ki lay nattu mooy yàlla mi nga xamante ne ci moom la dogal yi di ñëw maam di tukkee loolu rek war na laa doy ci nga xam ne ci nga ci ci ci ci mu dalal sa xel maanaam ak natt bi tamit bañ a metti ci yow maanaam le simple ki nga xam ne lii ci yàlla lu jóge te yàlla moom nga xamante ne moom la dogal yi ñëw yi dal sa kaw di tukkee ci moom moom moo baaxoo tàmmal na la ba di la tànnal lu rafet moom mi nga xam ne dalaa tàmmal lu rafet kooku bu fekkente ne ci moom la mbir yi di jóge maanaam loolu na na woyofal mbir yi kon na xam ne daf koo def rek ngir ne lii daal lu baax la war doon ci man euh, xadis yi nga xamante nag ñoom ñooy wax ci musiba yi naan amul benn musiba bu daal jullit lu ne dana ko faral ay bàkkaar ba ci dëgg bi ko jam mm-hmm. mm, ci partie boobu noonu lañ ci lañ waxe woon ne ci lañu waroon a wax li aju ci wàllu hmm, maanaam nit ki nattu yi bu ko dalee taxawaay yi nga xamante ne moom la ci am façon yi hmm, ñoom ñeent lañ dafa am koo xam ne bu ko nattu dalee dafay saalit maanaam day saalit day wëlbatiku mhm. hmm, weddi yàlla ne léegi nekk tuy jullit murtad na wala mu ne gëmatul yàlla ndax bu yàlla amee lan moo tax lu metti yi di ko dal mu daal léegi gëmatul yàlla wala mu jàpp ne yàlla kat mi nuy wax naan daa baax ak yu mel noonu loolu daan ndekete amut ma de taal yàlla ñu sàmm maanaam muy wax lu doy waar maanaam di ko jëmale ci borom subhaanahu wa taala ci di ko askane la lu bokkul ak li nga xamante ne moom mooy ay meloom te moom mooy ak mbaax ak euh, ak kook euh, yéwén ak euh, ak ngëneel ak lewet ak maanute ak yu mel noonu maanaam mu koy askan la safaanu yooye loolu dafa bokk maanaam yooyu mooy xeetu ak di wax naan lu tax yàlla di ma teg lii mm-hmm. ah, xanaa man rek la yàlla am ci ku muy teg lu mel nii lu tax tegu ko keneen voilà pourquoi moi voilà daan <laughs> nañ yàlla sàmm yooyu xeetu waxin mhm. kooku en fait nattu bi mbugal lay wëlbati ku nekk ci moom kooku nattu bi mbugal la ci moom euh, te itam euh, yàlla saa yu ko bëggee yëkkati dong la ko yëkkati ala kulli xaalin de toute façon nattu moom benn affaire am na yàlla mi koy tege moo ko yëkkati kenn du ko tege kenn du ko yëkkati itam yàlla ci boppam mi ko tege rek moo ko yëkkati te kenn manu ko yëkkati fekk heure bi yàlla bëgg mu yëkkatiku jotut anam gi mu bëggee mu yëkkati ko ci anam googu amut yaa kenn mënu ko fexe moom yëkkati voilà hmm. Hmm. léegi euh, bu loolu amee maanaam hmm, kon ki nga xamante ne moom mooy am comportement bi ñu wax sànq kooku noonu moom euh, lu ci ëpp am na fu muy yegg ci waxe bi day génn sax ci lislaam day nekk yéeféer mi ngi noonu euh, euh, ala kulli xaalin kuy doxale noonu mbir mi mbugal lay doon ci yow te coono rek ngay nga cay amee te bu àllaaxira maanaam te bàkkaar yi ñu cee jële moo gën a réyati encore kooku benn groupe bi la yàlla nañ ci yàlla musal beneen groupe bi yëggut foofu waaye moom mi ngi naqarlu métit bi affaire bi métti na affaire bi tar na affaire bi coono la affaire bi voilà moom mi ngi koy métti lu ngi jàmbat daal yàllaa ko tege sax dëgg la mais daal metti na lool nangam nangam maanaam muñut daal kooku keneen la kooku nag moom lay effacer ay bàkkaaram kooku day effacer ay bàkkaaram xadis yi ñoom mooy moom mooy tegtale ne kooku maanaam day effacer ay bàkkaaram mm-hmm. maanaam dëgg jam ko masalan mu ne ay yaa dëgg jam na moom su affaire bi loolu yaa métti naa nangam mm-hmm. voilà kaas kaas ak kaas dana effacer ay bàkkaaram <laughs> kaas yi malgré kaas yi voilà hmm, kooku mooy deuxième personne troisième personne bi mooy ki nga xam ne dafay wax ne hmm, manam day muñ waaw metti na mais mais naa muñ quoi comme yàlla moo ko def metti na waaye muñ rek loolu mooy muñ muñ mooy loolu muñ mooy ne waaw mooy affaire bi metti na la neexu la neexu la mais comme yàlla moo ko def bon mun ma ci dara quoi. <laughs> c'est kooku wuute na tuuti ak ki ñu wax léegi nii ki ñu wax léegi moom day kaas. mais kaas bi boole wu di wax yàlla lu ñaaw kon kooku mu looloo ko wutale ku njëkk gi voilà ki nga xamante ne moom day muñ <coughs> euh, ndax mbir mi metti na maanaam waxut lu ñaaw gis nga moo tax yenn saa saa ne woon ndaw sax as-sabr euh, as-sabr 'inda sadmatil ula muñ ci dóoru njëkk yi la maanaam ni muy njëkk dale ci ngay mën a muñe muñ kenn du ko def fekk maanaam doo toog ba kaas li nga war a kaas def li nga war a def yëpp tub dal yàq àdduna bi yëpp wëlbati ko daal ne bon comme affaire bi nag léegi demee ni nañ mun déedéet affaire <laughs> mooy ndaw si waxoon yent bi sallallahu alayhi wasallam ilayka anni voilà fekk ndaw si yent bi sallallahu alayhi muy nekk ci kanamu bàmmeelu doom bi tëdd di jooy hmm? di jooy di jooy di jooy di wax lu lu ne mu di ko wax yent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw ah, yow te ngaa muñ metti na waaye te muñ mu naan ko ilayka mu ne ko ilayka anni innaka lam tusab bi musibati e, jóge fi yow lii musiba bi ma dal dalu la jóge e, bi ko bi yent bi sallallahu alayhi wa sallam demee ñu ne ko kooku noonu yent bi la sallallahu alayhi wasallam mu daw nag dem kër yonent bi sallallahu alayhi ngir ne ngir ne daal bi rëccu lool kàddu yi nga xam ne moom la waxoon bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam ne ko as-sabru muñ mooy ci dóor bu njëkk bi nag voilà maanaam événement bi moment bi muy xewee ci tàng tàng bi loolu li ngay réagir noonu la tuddee muñ mais doo def li ngay def lépp wax li ngay wax yëpp ba pare ba affaire yi nag léegi nga gis ne amatoo benn choix toog nga nga ne léegi naa leen durer hmm? <laughs> voilà kaas nga yàq nga àdduna bi dóor voilà def nga li ngay def yëpp hmm, toj nga toj nga. épuisé tous les moyens. waaw toj nga li nga war a toj yëpp ñi nga war a voilà après nag nga dinaa mën hmm. du loolu voilà. voilà waaye waa ji def na lu nit ki def na lu la naqari wala mu wax la ko moment bi ngay toog noonu toog résister loolu mooy muñ mais pas nga wax ko wax ko lu ko ñaa lu ñaaw lu ne nga wax ko ko def ko lu ñaaw lu ne après nga toog nga ne dangay muñ loolu muñatoo dégg kon euh, kooku ki muñ nag moom maanaam nga xam ne toog na moom mbir mi metti na ko gaa mais muñ na metti na ko mais muñ na kooku li nga xamantene mom lay amé mom moy dañ koy fay borom subhaanahu wa da koy fay fay boo xamante du am limite comme innamaa yujzaa as-saabiruuna bi ghayri hisaab muñkat yi yàlla bu leen di fay da leen di fay di leen fay di leen fay en fait amul limite du compter bi mu leen di fay day jox affaire bi bëri rek waaw la leen di fay Euh, cependant am na benn mbir maanaam muñ euh, léegi ñu ñëw ci beneen bi ci des maanaam moom mooy keneen keneen beneen cas de bi nag kooku moom mooy mooy quatrième personne bi ah yal nañu yàlla boole ci groupe boobu. moom li muy def mooy moom bu ñëwee day gis ne ah kan ci am la jóge kon yàlla lii moom moom moo ko neex. maanaam comme moom la moom moo neex yàlla maanaam yàlla loolu ci loolu la kontaan ba tax mu dogal ko man tamit ànd naa kontaan la ko ci loola ànd naa kontaan ko ci loola ànd naa gërëm ko ci gërëm loola kooku nag li muy am moom mooy ngërëmal yàlla kooku moom moom ngërëmal yàlla lay am voilà boobu moom moo gën a metti mu gën a jafe mais boobu moom boo xasee ba man di ko doxal noonu mu doon ngërëmu yàlla nga ci am waaw waaw te te te ci ngërëmal yàlla moo gën àjjana gi ci biir waaw mo d'ailleurs mooy li gën a jafee am te mooy ultime maanaam li gën a yéeg li gën a kaw yi lépp lépp lépp lépp li ndébbal am muy ngërëmal yàlla mooy yàlla kontaan ci nit ki loolu moo gën a mu mu ëpp doole lépp lépp lépp lépp lépp donc kooku moom mooy mais nag euh, gërëm loolu dàkkontewul ak ngay dox maanaam ci luy dindi nattu ba maanaam dàkkontewul waaw dàkkontewul ak ngay dox ci pour luy dindi nattu ba lii dindi maanaam comme que xamuloo kañ la ko yàlla teggi mais xam nga moyens yi ngay jaar pour mu teggee ko yow da dox loola ngir tamit maanaam utiliser ndogalu yàlla maanaam comme li Seydina Omar waxoon rek la dee ñun dañuy daw ndogalu yàlla pour dem ci ndogalu yàlla waaw bi ko bi ko Seydina Seydina Abu Ubayda ibn Jarrah radiyallahu anhu waxee loolu hmm. afiraaran min qadarillah na law kaana ghayruka qaalahu ya aba aba Ubayda min qadarillah ila qadarillah fekk peste moo amoon Sham voilà bi ñu demee ba ci yoon bi ñu ne leen dëkk bi daa am peste lañ ñu waroon dem foofa euh, ñu ne foofa am na peste mu ne léegi kon bu nu ñu def mooy ñoom ñu ñu mujj waxtaan ci ne ah gars yi nan la ñu mujj def ñenn ñi yi ne ah nañ bu kenn bu ñu dugg ci dëkk bi. Abu Ubayda ibn Jarrah radiyallahu anhu ñëw ne ko. ah mais est-ce que dañuy daw dogalu yàlla bu ne ko waaw bu aka neexoon keneen wax loolu ku dul yow mais dëgg la kay dañuy daw ndogalu yàlla mais dem ci ndogalu yàlla maanaam mooy ndogalu yàlla gi ñuy daw mooy euh, peste bi buñ duggee ci dëkk bi peste bi dal ñu fa loolu gaa dogalu yàlla lay doon mais aussi ñun bu ñu demee bu ñu muccee fexe ba daw dugg ñu fu peste bi dal test <laughs> daluñu loolu dogalu yàlla la kon dañu jógee ci dogalu yàlla dem ci dogalu yàlla voilà voilà lu mënoon xew rek dogalu yàlla la mais ñun nañ def nañ choisir dogalu yàlla bi voilà <laughs> voilà <coughs> voilà kon loolu la en gros kon ñooñu ñooñu ñooñu ñooy groupe boobu dégg nga mu ne wat tawfiq wa tawfiq li ñeen mo wal ijabat ak nangul du'a yi ñeen sama ñaan mu ne at tawfiq tawfiq nak moy dëppale ñaan tawfiq bu na yalla ñaan moy tawfiq tawfiq moy dëppale ñu ci wafaqa dëppale na mu ne kon at tawfiq at dëppale tashil mom moy yombal sabilul khair yoonu yiw wa taati ak ak ak ak top ala lamb ci jamm <coughs> lool moy tawfiq tawfiq moy yombal gi la yàlla yombal yoonu yiw di def lu baax ak di topp yàlla ci jaam bi yombal bi yàlla yombal jaamam yoonu def lu baax ak di topp yàlla loolu mooy loolu mooy tawfiq voilà mais léegi am maanaam hmm, léeg-léeg yu ñu waxee tawfiq waaye daa am tawfiq yooyu mën nañ cee jublu leneen tawfiq mooy dëpp rek maanaam mooy nga bëgg dara borom subhaanahu wa ta'ala def exactement li nga bëgg loolu dëppoo ak li xew loolu mooy tawfiq mais yiw mbaax moo tax mu ne laa yaqdiru amul kàttan ala kenn du dogal amul sañ-sañ ala zalika ci boobu la mbir illa ku lu bur yàlla taala aji yàlla rekk am doole yàlla rekk am pouvoir de décision ci mën a ci joxe tawfiq maanaam ci di dëppale nit ki ci lu baax voilà loolu moom moo tax même maanaam maanaam hidaaya dañuy njub ak njub di gindee di orientation dafa am ñaar mooy hidaayatu tawfiq moom mooy benn bi ak hidaayatu irshad même même teg ci yoon nit teg nit rek ci yoon bu baax loolu ñaar yooyu la dafa am bi nga xam ne tawfiq la beneen bi ci des irshad la bu bi tawfeex bi mooy bi yàlla def rek man yàlla rek moo mën a jël nit dëppale xolam ci yoon bu baax ba pare mu di ko def kanta beneen bi ci des moom lañ ñeneen ñi man yeneen ci yeeg nit yàlla yeeg borom xam-xam yeeg yooyu ñoom yooyu lañ man mooy irshad mooy gindi orienté wax ne gars yi ah lii moo baax kat ba ñu gis ko ak lii la bon ñu xàmmee xàmmee leen ràññee leen mais kanta nag léegi nit ki xolam takkoo ak njub googa ba tax muy def lu baax ak a bàyyi lu bon kooku nag yàllaa koy def loolu moom moo tax borom bi subhaanahu qaala mu wax moom borom bi subhaanahu wa taala ji kan mu ne wa maa tawfiqi wa nekkul sama dëppale illaa billaahi loolu ci yàlla <coughs> xam lu mu wax dafa ne in uriidu illa islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah voilà wama bi na wama uridu an uxaalifakum maanaam unt yàlla Shuayb alayhi salaatu salaam ala nabina alayhi salaatu salaam dafa ne bëgguma wuuteeg yéen maanaam di leen digal lu baax ba pare bàyyi leen ba maanaam di leen digal dara ba ngeen di commencer saa dem ma rocceeku ngir dem wuuteeg yéen du loolu moom moo tax ma leen di wax en fait bu ma leen dee wax dara c'est parce que ma ne dama ci jiitu waaye nag sama dëpp dëpp la yàlla dëpp dama ci loolu nekkul maanaam in uridu voilà nam ma bugguma illal islaax lu dul yéwénal mastataatu lu sama kéem kàttan sama dëppale nag ci yàlla la nekk qaala wax na fil xaasin wala qaala hoo loolu la wax fil xaasin ci alxaasin téere tafsir waaw mu ne wala ijaaba ijaaba mooy nangu dégg nga maanaam kon borom subhaanahu wa defal na ma tawfiq maa ngi lay sant ci defal gi nga ma def defal tawfiq waaye tamit ak ni nga xamante ne moom nga ma may ijaaba dégg nga gars yi noonu <laughs> ijaaba mooy nangu exauce euh, exaucement waaw ay maanaam as sawaaba yool ala doa yi ci sama ñaan fal laam maanaam laam bi nekk ci al ijaabatu bi maanaa maanaam mi ngi maanaa ala ci maanaa ala lay lay tekk maanaam kon wa maanaam kon maa ngi lay sant ala ci ci ci nangu gi gi nga xamante ne moom nga defal moom nga may <coughs> ala ijaabat ci ci ci nangu addu'a ñaan dégg nga mu ne inaalatoo mooy jotale gi mu koy jotale maa saara li mu li muy sa sàkk di ko laaj minallahi ci buur yàlla taala aji kaw ji qaala wax na taala aji kaw ji buur nee na sootu baqara ay 186 wa ujibu man may nangu daawata ñaanuk addaay aji ñaan gi isa daane bu ma ñaanee maanaam ñaan gi bu ma ñaanee man may nangu ñaanam kon yàlla moom moom moo yow exclusivité wu di nangu di nangu ay ñaan <coughs> kenn du nangu ñaan kenn ku dul yàlla waqaala wax na ne comme waqaala hmm? rabbukum hmm? rabbukum dafa tub rabbukum bi hmm. seen borom seen borom subhaanahu wa ta'aala sootu Ghaafir <coughs> sosan <coughs> ud'uunii ñaan leen ma woo leen astajib lakum ma wuyu leen na nangu leen dégg munawan abi hurayra sallallahu alayhi wa abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala lahu fahne qala wahna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yastajibu dana nangu allah bur yalla li ahadikum ñel kenn ci yeen malam yado fek ñaanul bismin ci bakkar yalla dana ko nangul ñaanal awwala bok qati'at rahim moy ak dog bok aw aw wala bok yastajilu mudadi yakamti lolou mais yàlla moom moo yéen moom maanaam boo leen ñaanee ah boo leen ñaanee xam leen ni yàlla da ko nangu ba mu des cas de figure yi mooy ngay lan nga ñaan bàkkaar lu baaxut doo xam ne bàkkaar la wala boog luy doog ay mbokk luy doog ay diggante loolu tamit yàlla du ko nangu ah. wala ngeen yàkkamti xaalu ñu ne ko wama al istijaal wama ma al istijaal yàkkamti gi yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu wax fa yataxassaru fa yadoo maanaam mu daal di bàyyi ay maanaam yatruku mu bàyyi addu'a añaan bi maanaam nit kii di ñaan yàlla ba pare naan ko loolu mooy yàkkamte yi maanaam ne ne yàlla may ma nangam après mu ne am na affaire bi ñaan naa ko mais nangu mu daal di bañaan bàyyi di ñaan bu ko defee affaire bi tamit doom parce que en fait danga war di tout le temps di ñaan mbir mi fekk ñu lay soxal na nga ñaan ñaanal yàlla ndax yàlla moom ah dégg nga parce que parfois borom soona la mo moy mooy bëgg loolu mooy bëgg nga koy ñaan tout temps ngay ñaan rek mu Salman an Salman an Salman al-Farsi radiyallahu anhu radiyallahu <coughs> anhu qaala nee na rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam nena inna rabbakum nakasan borom de hayyun ku kersa la hayyun wala ya gum hayyun ku kersa wala karimun ku tedd la yastahi am dana am dana kersawoo min abdi yi ci jaamam iza rafa bu yëkkatee ila yi jëm ci moom yada ñaari loxoom an yara doxamaaw ci mu delloo ko sifran hmm? maanaam sifran mooy mu nekk loo xam ne dara du ci am sifr mooy zéro voilà muy neen xaayiba tey ni yaakaaram bi aji tas yàlla du def loolu yàlla mu ne dafa amee kersa han te dafa tedd manam legui bat bobu lan manam parti benen ci hadith bi mom moy firi lan la bat bobu di tek ne yalla dafa amé kersa dafa tedd moy lan moy dafa am kersa dana dana kersa wu ci mos jamu yekiti ay loxom ñaari loxom yi han mu delo ko nonu te du ko dox dara manam mu delo ko nonu maanaam axrajahu solo na xadis bi Abu Dawud imam Abu Dawud Tirmidhi imam Tirmidhi maanaam an-Nasa'i tam solo na ko rahmatullah alayhi wa qaala mu wax ne xadisun imam Tirmidhi dafa rahmatullah dafa ne xadisun xasanun xasan la boo xam ne garib bu tumuraanke la maanaam mooy ne xadis bi benn caalal la voilà xaraaba gi du ci du ci du ci kii bi du ci wéeru ko isnaad gi mais ci maanaam fard la loolu la wax xarib dañ koy wax xarib mooy parce que fard la voilà mooy al fardul mutlaq la ñu koy wax xarib mooy fa fa xadis boo xam te ne benn càllale la am dégg kon borom subhaanahu wa dana kerso woo ci loola moo tax saa yoo ko ñaanee rek xam ne yàlla teg na dara sa loxo maanaam xadis bi tamit day day day day day day tegtale ne maanaam loxo yëkkati ñaan sa loxo loolu ah loolu wér na te voilà même comme xadisu raf'u zul yadayni d'ailleurs xam nga lu ci yéeme moom mooy mutawaatir a xadi yi wane ne yëkkati sa loolu mutawaatir la ndax dafa bari ay mais mutawaatir la du ci lax bi mais maanaan la maanaam maanaa bi tax mu nekk mutawaatir maanaa bi la maanaam mooy ñu bari bari dañ ko soloo ci yente bi sallallahu alayhi mu yegg ci limite boo xamante ne maanaam ñooñu ñu bari solo ko ci ñoom ñu bari ko ci ñoom maanaam ci limite boo xamante ne dafa impossible ñoom ñëpp nettalee mbir mi fekk dañoo bokk juum wala ñu déggoo ci wax lu dul dëgg wala ñu mel noonu maanaam loolu dafa impossible wala mu mutawaatir léegi euh, euh, voilà comme tey fi mu toll bu ñu toogoon benn waaye daal di ñëw ne maanaam kenn ñëw si daal di daal di daal di. Euh, comme comme comme comme maanaam xew am fi benn xew am fi am ñu jógee ci dëkk yu bari comme gàmm par exemple ñuy jógee Toulouse ñuy jógee Montpellier ñuy jógee euh, Marseille ñuy jógee Paris ñuy jógee Valenciennes ñuy jógee euh, Poitiers ñuy jógee et cetera kenn ku ci nekk su ñëwee ba dugg si ci dëkk bi danaan waaye yéen gis ngeen buntu dëkk bi la fa xew ñu ko loo xew mu ne ñu ne eh, dañ faa gis kat cortège ay cortège yu militaire te xamuñu luñ fay def maanaam waa Poitiers njëkk ñëw wax ko xam nga mën nañ ko dañ koy dëggal mm-hmm. mais bu fekkente ne waa li waa Valenciennes dañuy ñëw tamit wax ko waa Toulouse ñëw wax waa Montpellier ñëw wax te yëgoowuñu mm-hmm. maanaam dañuy xam ne ñii dafa impossible ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sos information bi mm-hmm. ba pare fekk ñoom ñëpp ñu dëppoo ci sosa ko dafa dafa impossible en maanaam bu ñu baree rek bu ñu bu ñu xësee ba mat fukk ñaar fukk mais fanweer rek day daal di commencer nekk loo xam ne dañuy dañ naan non di c'est impossible ñoom ñëpp ñu sosandoo ko voilà ah voilà loolu moom mooy mutawaatir maanaam euh, euh, non seulement mënuñu ñoom ñëpp mënuñu koo sosandoo ba pare mënuñoo déggoo tamit ci sos ko ndax impossible tamit ñoom ñëpp ñu concerté wu pour wax na bu ñu yegsee fii lii la ñuy wax. te ñoom bokkuñu yoon wi njaar bokkuñu fi ñu jóge dafa loolu tamit beneen affaire la beneen impossibilité la ak yu mel noonu maanaam loolu mooy mutawaatir léegi nag <coughs> xadis yi wax ci yëkkati maanaam nga xamante ne boo leen toogee peut-être que ñoo bokkuñu même xadis bi mais soo leen xoolee ñoom ñëpp maanaam yëkkati loxo ci ñaan daf cee duggaale voilà euh, euh, mais li gën a tumuraanke mooy da gis ñoo xamante ne dañ koy dañuy maanaam dañuy dañuy gis ñu naan ay yëkkati loxo saxul ci sunna ak nangam te subhaana bi ànd ak ne maanaam yëkkati loxo ci ñaan maanaam ànd ak ne dafa siiw maanaam ànd ak ne mutawaatir la loolu day wane maanaam léeg-léeg ñenn maanaam loo doon wax ne leen ñenn bi saa sànq xaal sàngam defoon na yëkkati loxo dañ naan la non mais boobu benn kaa la joxoon beneen mais maanaam fi mu toll te pourtant mutawaatir rek borom xam-xam xadiis yi ñoom dañ ko boole ci mutawaatir raful yadayni même ci imam Suyuti daf ko boole ci yi mu tudd ci ci alfiyaam bi moom yi mu wax ne maanaam comme xadis bi mutawaatir la kaga hmm? xadisu raf'u zul hmm? donc euh, da kon ndax ndax maanaam li rek doy na pour wane ne yëkkati loxo ci ñaan lu baax la manam parce que de toute façon soko defé yalla yàlla du ko delloo boo ko defee ñëwee hmm, yàlla du ko delloo tout le temps dina am lu ci tek tout le temps gisoon nañ ko sax ci ça peut être 33 33 bi disons dégg nga asifru nee na moo laa asifru mooy neen mooy neen mooy alxaal mooy loo xamante ne dafa wit ci ci dara maanaam mooy zéro daal rien yu xaalu def na wax ne baytun sifrul kër goo xamante ne maanaam dafa neen maanaam dara mooy laysa mooy loo xam ne laysa fii mataa am laysa déet fii ci kër googa mataa am du nii manam lu lu nu lu lu am pomit manam lu nu mën a wala lu ñu mën a am manam moy kër go xamante ne amul ben matériel dañ nan kër gi da wéet maison vide voilà sifra mo loolu vide voilà mu ne waan Ubaada solo nañ ci Ubaada ibn samit radiyallahu anhu anna rasulallahi naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na ne maa alal ardi am maa nekkul alal ardi ci kaw suuf muslimun aju yadu bo xamne dana wo allah bur yalla bi daawatin ci woote ñaan illa lul ataw dana ko jox allah bur yalla iyaha jëmmi lamay ñaan aw wala bok sarrafa mu jani an mu wolif ko min ci mbon ci musiba mislaha ma lam yadaw feek wu ñaanut is ismin ci bàkkaar aw qati'at rahim wala ak dog bok amul benn julit buy ñaan motax ñaan du neen mukk soit yàlla daf la ci yëkkati loola dala dala ci eh, fajal sa ajo booba wala mu dàqal la ci lor gu kem lor maanaam la nga doon ñaan joxu la jëmmi lor jëmmi ñaan gi mais dafa dafa seet loo xamante dafa xool li nga xamante ne moom mooy lor gu toll noona lu la naroon na dal mu jañale la maanaam yow nag yow li gisuloo li nga doon ñaan defee ne affaire bi nanguwul fekk nangu na mais daal la dala caa fànqale benn lor boo xam ne bu yegg si woon boo moytul la nga doon ñaan même bu la ko joxoon dootoo ko ci fa qaala mu daan wax rajulun benn waaye min xaw mi ci nit ñi nee na izan kon de bu boobaa nag su danañ baril de ah kon nag nañ baril ñaan qaala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahu bur yàlla aksar moo gën a bari la waaye yàlla gën a bari la de axrajo soloona xadiis bi at-Tirmidhi rahimahullah qallaaw xawlu wax gi wax ne allah moo gën a bari maanaahu li mooy allah bur yàlla moo gën a bari la ijaabatan ak nangu maanaam seen ñaan lu bari bari bari yàlla ak gën a bari la nangu waan abi hurayrata solon jël nañ na qaala rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na udoo woo leen ñaan leen allah bur yàlla anhum fekk yéen muqinuuna yéen ngi am wóor ci biir ijaabata ci nangu boo leen dee ñaan yàlla nan na ngeen ànd ak certitude ci yàlla da koy nangu loolu bu mag ci ñaan secret bu rëy ci ñaan hmm? waaw bu ngay ñaan tout en sachant ni yàlla da koy nangu bëri na sax eh, bëri na nit ñi di dem benn place boo xamante ne dañ fay ñaane ñaan ga di nangu ñu foog ne place bi la fekk du place bi c'est que seen conviction bi ñu am ci ne place bi ku fi ñaan yàlla nangu ko loolu conviction boobu la voilà bëri na naan nañ dem ci seen diw mu ñaanal ñu moom mu ñaanee yàlla da koy nangu mu ñaan affaire bi am fekk du moom yow yow la yow mi am conviction ci ne moom bu ñaanee mu nangu yow la ñaan gi et cetera conviction boobu nag boo ko amee ci sa bopp yow yàlla nangu ko man nag damaa xamul ana lan moo tax keneen ñaa ñaanam di mën a nangu te sama bopp yàlla du ko nangu voilà yàlla rek kay maye moom rek kay maye kenn du ko maye te man man naa ñaan ndax ndax ñaan moom ñépp a ko man itam yàlla may ma rek may ma nangam dama koo soxla yàlla may ma nangam moom laa bëgg loolu moom ñëpp mën na koo wax du dëgg te kenn du maye ku dul yàlla loolu moom it ñëpp xam nañ ko waaw léegi lan moo tax ma jàpp ne il faut que ñoom diw def ko muy doog a nangu man bu ma ko defee du mën a ne loolu mooy dama limité yàlla ci ne yàlla moom manuta may lu dul ñoom diw loolu lay tekki manta nangu ñaan lu dul ñoom diw parce que man ni ma koy defee xëy déedéet man maa war a gëm ne bu ma nee yàlla may ma yàlla nangu secret bu mag a mag a mag la ci ñaan euh, bu mat a négligé bu mag a mag a mag la bu ma ñaanee yàlla dana ko nangu waaw koy ñaan den mais xoolal lim ci teg waalamu te na ngeen xam ne anna allah naka bur yàlla taala aji kaay ji laa yastajibu du nangu du'a ñaanu ñaan goo xam ne min qalbin dafa tukkee ci xol boo xam ne xaafilin aji yéegi di la laahin aji Eh, eh, sàggan la maanaam ah, di di am foola daan maanaam dafa nekk di distraire maanaam mooy maanaam yooyu secret ñaar yi yooyu la ñaar yooyu la mais secret yu mag lañ ci ñaar yoo xam ne moom bis boo ko yoree xamal ne ñaan nga dana am bu njëkk bi mooy mu leer na ne lii may ñaan yàlla donc koy maye kat te man mii moom lay ñaan te man jaamam la ah ñu bind lii moom la ma bind ah te te te te comme jaamu ñun ñëpp ay jaamam dong lañ munuñoo nekk leneen lu dul jaam amul leneen maanaam munuñoo ne leneen munuñoo ne yàlla comme moom mun kon jaam lañ mën a ne léegi comme ay jaam lañ daal nañ ñaan yàlla ne yàlla ñu nangam te moom mi ngi ñu dégg te xam na li ñuy wax loolu tamit leer na ñaari ñu nit ñi ñu xel duñ ci werante euh, comme nit ñuy dégg te dana mën a nangu te day nangu kon man bu ma ko ñaanee te moom dafa ne buñ ko nañ ko ñaan ndax mu nangu mais lu tax man may jàpp ne sama ñaan yàlla du ko nangu te moom moo ne ñaan leen ma ma nangu ma nangu lépp ko moom mu nangu léegi nag en fait am na ku ma ko sax mu ne ma ah yi ngay wax nag moom yaa ngi yàq liggéeyu gars ndax ma ko noonu fekk mu ma wax ne naa ko ñaanal nangam nangam kii ma ne ko mais defal ndànk dinaa la ñaanal ah. man dinaa la ñaanal mais yow ñaanal yow parce que yow problème bi problème bi nga confronté yow yaa gën a xam degré bi maanaam yow yow ni ngay yëgee nii problème bi sama problème la ni ni mu fee nekk ci sa xol ni ngay yëgee métit bi sensation boobu man aw mu ko ci sa problème maanaam yow. <laughs> yow sa ñaan boo ko ñaanee yëg-yëg googu ngay am moo gën a moo gën a dëggu que man bu may ñaan ñu yëg-yëg bi may am dinaa la ñaanal naka ah. dinaa la ñaanal borom subhaanahu wa ta'aala alhamdulilah defal na ko sutura ci loolu mais man mais man eh, ah, ah, <laughs> ko mais non si affaire yi awul awul lu bari awul lu sori nan la léegi ni ñoom diw ñaan wax leen diw mu ñaan lii leen moom ci boppam yo ah bu la leer yàlla rek kay maye keneen du ko du euh, la bi ci def ski bi ngay andal dëggu gi ngay andal moment bi ngay ñaan manam moment bi may ñaan mënuma nek tamit di bëgg di ñaan di ñaan sama xel nek ci leneen man ta nek moom lay wax nii c'est parce que vraiment sincèrement loolu moom moo tax même yéefir bu ñaanee yàlla te sincère yàlla da koy nangul loolu moom moo tax moo tax muy wax naan même yéefir bu nekkee ci géej gi ba géej gi sàmbaraan yi nga gis bu ñu ñaanee yàlla yàlla musal leen yàlla musal leen voilà ki dàq ñaan mu nangu mooy ci nekk ci problème ba nga xamante ne sës na sës boo xamante ne amul kenn ku mu yaakaar ko du yàlla kooku moom moo dàq ñaan te kooku foofu boo xoolal kooku buy ñaan rek affaire bi dal lu tax parce que maanaam xolam ni muy concentré woo ak aju gi muy aju ci boromam ak toroxlu gi muy toroxlu wane gi muy wane ne moom mu tar la maanaam koo xamante ne dafa nekk nécessité instant bii nii lii nécessité la ci moom yàlla na ko nangu léegi nii sinon musiba am yàlla nangul ko maanaam fekk désespéré wul ci dara ci lépp de désespéré ba des ci yàlla yaakaram tas na ci lepp ak ci ñepp ba dess yalla yalla rek mo dess yalla fi sus xol bi aju ci yalla et que affaire bi c'est urgent ni ni ni nga gis day ñaan yalla nang ko lu tax parce que moment bobu xol bi dafa aju ci yalla maanaam distraire nek nekk di xalat ñuy di ñaan xal xel mi nek ci marché bi xel mi nek ci après suma joggé fan dem dedet manam instant bi ni dafa concentré wu ci yalla toroxlu ci borom loolu nag sa xol bu mënee nekk ci xaal boobu moment bi ngay ñaan loolu moom mooy sa kër mooy buntu mooy caabi bi ubbi ñaan yi waaw ah, mooy caabi bi ubbi ñaan yi su ah, loolu moom waaw hmm? d'où l'intérêt d'où ñaan aussi maanaam ñaan gi jarul muy gudd <laughs> gars yi da <laughs> non mais c'est vrai bu commencé gudd da ngay déconcentré te comme affaire bi pour mu nangu kon maanaam bokk na condition la comme ni ngeen di wax fi saa saa yàlla du nangu ñaanu bu tukkee ci xol boo xamante ne dafa yëg dafa distraire insouciant moment bi maanaam fu ne mu dem fa distraire yàlla du nangu ñaan boobu kon kay yow moment bi ngay ñaan kay bu ñaan du gudd. mais dangay gis saa yi ñu war a def benn affaire kii bu ndaw ñu nga gis gars yi joxe ay ju lim yoo xam ne nangami junni nangam mais nee nañ te benn affaire dafa am. Euh, c'est très important même surtout ci néew yeeg yooyu surtout ci néew yi même même yi maanaam dans la vie de tous les jours dafa valable aussi ñaan lu mu gën a gàtt gën a yomb xoolal ñaan yeneen yi alayhi salaam alxuraan mi ngi nii nettal nañu yeneen yi liñ doon ñaan. ay baat yu ndaw la daan doon loo xam ne du mat sax ab aaya daanaka dañ koy ñaare affaire bi de waaw ñaan jarul muy gudd bu guddee rek ne tem tem nga dugg ci bu dee sa gi ñun dañoo mën dañoo mën tenir suñu xol ci état boobu ah mënuñu ko sa maas gépp mënul lool <laughs> état boobu mu benn moment la da ngay profité ci même moment boobu rek nga ñaan sa xel du dem feneen nga nekk ci yàlla nga ñaan ko toroxlu ci moom mu nangu li lay nangu nga def ko. voilà mais boo bëggee nekk ñu war a kii eh, eh, eh, nga naan nañ nañ nañ def na kenn ku ci nekk def téeméeri Ixlaas ak nangam keneen ki ci def ñu ne nañ def après buñ paree def kenn ku ci na def téeméeri laatu yaa Latiif ak ñaar fukk ak juróom-ñeent buñ paree ma buñ paree waaw nañ ci teg nangam mi Jawharatul Kamal bu ko defee ñu mën a kii après ñu paree ñu ne ku ne waaw nañ ci teg juróom-ñaari inna anzalnaahu juróom-ñaari alam nashrah buñ ci mais non gis nga benn affaire am na bu fekkente ne lu néew ci alquran mënu la jariñ lu bari lu la lu néew bu la mënul jariñ lu bari du la jariñ c'est-à-dire tey boo ma doon ñaan bu ma doon ñaan ñuy par exemple ñaanal néew gis nga ñetti Ixlaas bu ko mënta jariñ néew boobu wala benn Faatiha munu ko jariñ mais du ko jariñ munu ko benn benn benn Ixlaas mënu ko jariñ benn Faatiha rek ko jariñ non defal junni milliard ci ay Ikhlas du ko jariñ jarul dangeen ngeen di sonal seen bopp jarul jarta def jarta def voilà te sax boo fi nekkee di wax yooyu sax gars yi dañ ko dul def wala bu ñu ko defee defin bi ñu koy defee moo dul valable maanaam moo dul moo baax sax dañ koy def ak distraction continuer ne voilà nañ defal voilà nañ ne nañ ne def Euh, cent vingt quatre milliards fu nangam mais da ngay gis bu defee bu kenn ki defee buñ gisee ni moom liñ ko séeddu saa yi fi mu tollu dix mille la dix mille lañ ko séeddu saa yi neuf mille yu njëkk yëpp day distraire te xelam mu ngi ci naan affaire bi kañ lay jeex ba mu des mille nag xëy na muy doo commencé concentré wu wala mais kooku doo benn yàlla tamit doyoon benn rek doy na <laughs> ah mooy mooy nit maanaam yàlla la ci boppam mooy al-Latif moom rek la maanaam nga wax ko junni yoon ak nga wax ko benn yoon moom kay na la rek te secret bi nekkul ci nombre bi ci qualité bi la ne nekkul ci quantité bi loolu moom lañu ñu bari réer ñu baree bari dañu dañ koo réer ak point boobu di sonn mi ne la nii sonn moo tax ku ku yeewu dëgg dëgg dëgg ñaanam ci lenn doo nga koy yamale faatiha salaat faatiha paat <coughs> jeex na faatiha salaat faatiha lépp ngi ci biir faatiha alxuraan yépp ngi ci biir salaatu faatiha mu deuxième lépp ngi ci biir tout tout tout faatiha salaatu faatiha gars yi eh, nañ def faatiha nga euh, kii Serigne Koutou day dama koy faral di joxe exemple ndax dafa marqué ci point boobu euh, euh, benn Chérif Qadir la Pikine dëkk ko mais gis nga boo dem boo dem ñaan ñaan mais gars yi dañ koy rang ñaanam day mais day comme bal buy tàkk la dañ koy rang fu mu dem kër gi day fees dell monsieur xutub ñëw dangay ñaanal mais gis nañ muy ñaan mais boo leen toogee mu ngeen ñaan dañ leen tàllal loxo yow moment bi ngay tàllal boo moytuwul fekk na fekk na raay na boo ñëwee wax li ngay wax yëpp yëpp yëpp ba pare <laughs> booy tàllal moom waa bi ngay tàllal moom boo moytuwul fekk na raay na lox raay na euh, euh, raay na <laughs> ah parce que affaire yi loolu benn moment la bi ngay bi ngay concentré wu ci yàlla dajale sa xol bi yëpp recueillir complètement ci yàlla ne ko mu def li nga bëgg jeex na loolu mooy ñaan. muy ñan dégg dégg nga xadis boobu kon nag axrajo solo na ko ak Tirmizi imam Tirmizi rahmatullah wa qaala wax na xadisun xadis la garibun bu tumuraanke maanaam ci càlla léegi tamit waan abi Hurayrata solon jëge si Abu Hurayrata radiyallahu anhu Rasulullah ndako ndaw Yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laysa amul bi shay'in ci dara akram bu gën a tedd ala Allah fa yàlla mi nag du'a yi ci ñaan amul lu gën a tedd ci yàlla fa yàlla ka ñaan ñaan en mooy dëgg-dëgg sax mooy comme ni wax ad-du'a muxul ibaada mooy euh, yuur mooy euh, euh, kii kii cérébral nan système système nerveux système nerveux bu bu bu jaamu yàlla mooy ñaan ñaan mooy lépp jaamu yàlla lépp ci ñaan la ne ñun julli gi ngay gis julli yi ñuy julli lepp ay ñaan la bu feen feen ay la ya ya yàq liggéeyu gars yi de. <laughs> non mais. <laughs> ya ya ko mais mais mais c'est ça. mais mais xana xana xana waji xana waji ñu ñu ngi koy waaw waaw dem fële waaw yóbbu waaw waaw. sëñ Moussa Fadi mën na la daggal paas man ma dem man. ma dem ah waaw waaw ah. ah. ma daggal ko paas. ba pare jox ko bu fa demee la mu fay nekk. mais man ma demal sama bopp. léegi noonu la ne xabru Cheikh. waaw pendant une semaine. waaw dugg ci seen mbir yow te de. waaw waaw man ma demal sama bopp bàyyi ma def loolu. te sax maanaam sama ñaan nangu moom aju ma ko ci loolu. waaw fii ma toog mën naa ko def mu ñaan ko mais nangu waaw. sama ñaan nag moom ajuma ko ci dem ba fenn fii ma toog lay toog bu ma jugee ci nelaw léegi yeewu ci nelaw léegi wala mooy tëddee ci lal bi ma xaal bu ma neex mën naa faa toog ñaan ko ñaan bi nag du parce que ñaan amul loolu yàlla mooy nangu jeex na voilà voilà voilà te ñaan protocole bi tax ko bari walla sax amul. moom na voilà jeex na décret ba rek voilà. monsieur Hollande mën nga ko bind ñaan ko sa soxla bu may la te gisoo. voilà jeex na exactement. voilà te moment kii wax ak yàlla ci ñaan xol la. ñu foofu nag la ñu bari di juume tamit du làmmiñ de. xol la xol mooy wax yàlla ci ñaan yàlla nangu ko. looloo tax mu ne ñaan yàlla du ko nangu bu tukkee ci xol bu distraire. parce que moment bi ngay ñaan il faut que sa xol ak sa làmmiñ bi bokk li lay wax. voilà munoo di wax ak sa làmmiñ nangam fekk sa xol leneen lay wax loolu la lay wax. looloo tax ki nekk ci problème dëgg nekk ku nécessité jamono jooju noonu nga xam ne amul yaakaaram tas na si yëpp ci yàlla doo nga la yaakaar te lii rek kay maanaam àddunaam bi yëpp ça se résume ci affaire bii kese tey tey maanaam lii rek la àddunaam bi yëpp ça se résume ci lii. kooku ngay gis moom da ngay gis buy ñaan ñaan gi nangu léegi loolu moom moo tax euh, euh, euh, kii moo gën ñaan ñaan moo moo gën di jàmbat hmm? moo gën ñaan au lieu ngay toog affaire bi nangam non sama problème bii xaw ma nan laa def ba génn ci mais non bul wax loolu moment bi ngay wax loolu mais ñaan ma moment bi ngay toog naan sama problème bii moom adduna ci yàlla fi dool di jawlu ci moom <laughs> eh, voilà voilà moment bon au lieu ngay def lool ñaana <laughs> eh, ah, voilà voilà <laughs> moom la sëñ Babacar ci kii gis nga day xasida kii wal arab wala xolam boobu naa inna na inna du'a silahul mu'minina ajal bu leen ko xeeb te di soow guddi yi ak bëccëg yi voilà li xadis bi wax voilà ñaan ñaan jaasi jullit la xadis bi loolu la wax waaw ad du'a mooy jaasi aji gëm ji voilà <laughs> kon gis nga mais nag bu leen ko xeeb parce que jaasi mën naa dog lu bari mais nag dafa am ay condition mooy ki ko yor di dóoru mën a dóore parce que jaasi boo ko joxee gone tamit du mën dóorul liir bu tëdd ci lal bi bu tëdd ci beer soog liir boobu mënut mënut a dara mais aussi mu bañ a am luy tegu ci kawam loo xam te ne day tax ba dal ci kawam comme di ñaan lu wax luy dog mbokk ak yu mel noonu. maanaam mais xol bi rek moo yor puissance bi puissance su dóor bi moom ci xol bi laaj mooy instant boobu na nga wu ci yàlla torox lu war ko ne ko da nga ko da nga yàlla ñaan mu nangu xol état boobu boo ko mënee du du boo ci mënee dugal sa xol rek mooy ñaan bi day nangu. mais nga ànd ak conviction que yàlla dana ko nangu loolu nag moom loolu nag la gaa gaa yi parfois ñu bari nag loolu lañ doon am ñoom jàpp nañ ni fi mu toll bu ñaanee nañ ñaan protocole rek la yàlla du nangu de toute façon. loolu moom moo ñu yéemu bu ñu gisee ku loo xam ne bu ñaanee yàlla da ko da koy nangu ñu yéemu alors que pourtant ñoom mënoon nan ko mais ñoom ñoo gëmul ñoom ñoo ne ñoo jël décision ci ne yàlla du nangu seen ñaan comme foofu lañ yaakaar yàlla rafetu njort ci yàlla yàlla tam di doxal ak ñoom noonu. mais bu fekkente ne gëm nañ ne yàlla moom bu ñu ko ñaanee yàlla dana nangu ñu rafet njort ci yàlla yàlla dana nangu seen ñaan ay kon ñoo kon ñoo kon ñoo ñëpp doon doon doon Chérif Koutou loolu moo leen daal non mais non non non non defal daal dafa ndànk wa man seen xutub bi ma jëlee exemple dama ko jël exemple sur le fait que voilà ñaanam dafa gàtt et que day nangu maanaam moom moom ñëpp ko xam ñaanam gu nangu moom dafa dafa siiw moom maanaam moom boobu moom moom moo tax fu mu dem en mu dem da ngay ñi dañ koy rang xam nañ ko. comme sëñ Mansour. voilà voilà voilà comme sëñ Mansour ni mu woon ci ñaan gu nangu. voilà. voilà da ci siiwa siiw ba nga xam ne. voilà. examen dañu dafa biki. voilà ak ak yeneen rek day maanaam ñaan rek. voilà ñaan te pourtant day dajale rek. waaw day dajale. rek ni mu jeex lool nag mën na nekk ci ñaari mbir mën na nekk ci maanaam moom ñaanam parce que dafa am conviction ci ne bu ñaanee yàlla nangu ko et que bi mu ñaan day dugg ci xolam day dugal xolam ci xaal boobu noonu mais mën na nekk aussi beneen point. mooy nit ñi yaakaar gi ñu am na moom bu ñaanee mu nangu yàlla di ko nangu ci ñoom ci moom maanaam ñaari point yooyu mën naa ne mu nekk mooy voilà na nag ñaar yëpp la waaw na nag ñaar yëpp mu dajale xadis bi li mu wax rek mooy di xadis bi ngi sànq léegi voilà mais Serigne exemple bi ma doon joxe sànq mooy ne. gàttaay gàttaay bi la. moom léegi nga koy wax léegi nii ngi nii da ngay ñëw wax a wax a wax a wax a wax ngir tenir discours pendant une heure temps nga foog ne lu ne la lay defal wala lu ne lay bindal mu ne la tàllal la loxo nga tàllal rek maanaam yow moment bi ngay tàllal ak moom moment bi muy raay ci kii bi daanaka benn la maanaam yow sax da nga doon <laughs> wax ndax bismillahir rahmanir rahim rek dana ko wax. waaye moom lii nga ko wax moom moom booy dem commencé gis muy faju moom waaw waaw moom kay loo boobu donc ndax dana ko wax non moom kay ni mu gaawe sax dafa yéeme ko waaye boo génnee ba dem la nga la la fa indiwoon mu commencé fajo mu ne kon xam nga ñaan mooy jaa si jullit la im na doi silaaxul mu'minina ajal mu ne waaw mu ne kon nag bu ko xeeb te di soow guddi yi ak bëccëg yi di sow rek di kaas dëkk bi da ngay waru xam nga jamono affaire da ngay waru quoi dur dox quoi c'est problème mais mais affaire bi da ngay waru nang lu na nga di ko kaas non déedéet moment bi ngay kaas remplacer ko par ñaan. léegi yëf yi avancé. voilà. léegi léegi. wa dégg kon amul lu gëna a teel dafa yàlla kañaan mu ne axrajahu solo nak at-Tirmidhi rahmalahu wala wo ñel nako manam imam at-Tirmidhi batay radiyallahu rahimahullah ci téere mi ci sunanam an anas jële ci anas ibn malik radiyallahu anhu anna nabiyya nak yenn sallallahu alayhi wasallam qaala wax na ne addu'a u ñaan muxul ibaada mooy mooy mux mooy voilà mooy yuqu wala yuur ibaada jaamu yàlla hmm? mooy système cérébral voilà wala woote ñeel na ko ba tey mu Tirmidhi rahma an ibn Umar jël Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ma anna qaala nee na man képp koo xam ne futiha ubbeef na lahoo ñeel ko baawun bunt mi na duwaay ci ñaan futihat nga xam ne ubbeel nañ ko lahoo ñeel ko abwaabu rahmati bunti yërmande yi wama su ilate ñaaneeful laajeeful allah bur yàlla sey an dara ahabba lu gën a sopp ila yi ci moom min an yus ala ci ñu ñaan ko al aafiya te aafiya mooy jàmm maanaam aafiya mooy xol jàmm jàmm walla waaw bu ñëwoon ko mu mu ne ko ñaanal aafiya mu noppi mu waxaat ko mu waxaat ko mu ne ko sama doom est-ce que dangaa foog ne ci li ma nekk ne tudd aafiya Hmm. lii ma ne nii mooy sama affaire yàlla lii la bëgg ci man voilà tegu ma tegu ma ne ma nekk ma yéefar ci affaire affaire mooy jàmm xol jàmm maanaam xam naan voilà comme niñ naan jàmm ak salaam. Hmm. voilà naan jàmm ak salaam jàmm ge ja bon salaam. Hmm. en fait mooy jàmm mais voilà mais. voilà aafiya aafiya mooy jàmm gi ngi nit ki di yëpp maanaam le bien-être la le bien-être voilà le bien-être mm-hmm. voilà mooy aafiya le bien-être maanaam loolu amul lu gën ci nga ñaan ko yàlla loolu voilà alhamdulillah voilà mun a wa inna du'a wér wér mooy ñaan yan faw dana jariñ mi ma nazara ci lii wàcc wa mimma ak ci li nga xamante ne lam yanzil wàccagul ñaan dana jariñ ci liy wàcc ñëw ba pare ak li nga ñëwagul yooyu ci ñaanee yàlla mun na laa defal jàmm mu defal la mucc wala woote ñeel na ko ba tey imam Tirmidhi al Salman mu jël Salman al Farisi radiyallahu anhu rasulullah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na laa yardu du delloo al dogal illa du'a lu dul ñaan ñaan rek mooy mooy mën a delloo dogal wala tazidu te du yokk fil umri ci dund illal birr lu dul baax di def lu baax moo lay yokk dund waaw parce que même même loolu la booy defal nit ñi lu baax di dox lu baax di leen servir lu baax loolu mooy mooy déewoo ko parce que war da nga dund ba yàlla fay la ko mooy déewoo ko ah da dund ba ñu ñu maanaam keneen ñëw defal la ko moom intaha foofu la yam nga xam ne lay kon